asalaamaaleykum mbokk yi yéen ñiy seetaan allo Dakar TV tey ñuy dalal gan gu mag maire Diossone euh, monsieur Momar Touré euh, monsieur le maire remaniement bi am jamono yi passé président Macky Sall changé ministre de l' agriculture Abdoulaye Seck yéen ñi nekk ci àll bi te nga xam ne mbay lu leen soxal la euh, defe naa ne bàyyi ngeen ci xel tey lan mooy sa première réaction bi fi Abdoulaye Seck jógee. dina nuyu allo Dakar TV. Eh, di am kontante ci dalal bi ñu ma dalal eh, di gërëm président de la république di ko ñaanal yàlla it eh, deuxième mandat bi mébét yim ci sàkku yàlla may ko ko te xalaat naa ne jël na ko en compte bu baax buñ gisee remaniement bi mu def man nag dama nekk maire boo xam ne ay baykat laa jiiti ak ay sàmmkat mais li ëpp su ñama jiite ñëpp ay baykat lañ kon su ma nekkoon assemblée nationale it li ma intéressé rek mooy wàllu ñi ma jiite wàllu wu ñu faree loolu lay gën suivre kon remaniement bi su ma gisee ne sensé nañ ministère agriculture jàpp naa ne président bëgg na indiaat yeneen réforme ci mbay mi mais nag loolu mu def war na ko def parce que ministère agriculture mbay mi dafa bëri mafia yoo xam ne baykat yi amuñ kenn ku leen waxal dañ ñu rey ba ñu dee vet baykat yi dañoo bëgg président de la république mais benn bu fekkoon ministre agriculture ak ni mu doxalee ak ñoom la rek benn baykat du woteel président de la république. parce que dëgg ji nañ ko wax man foofu laa nekk ci àll bi laay yeew waxoon naa ko fii fii ci Dakar ci Allo Dakar TV ci mois de octobre newoon naa ne ba may demoon ma ne euh, DC Lindiane laa jaar léegi Sonacos hangar yañ fa jóoroon daaw ba léegi mu ngi fa commercialisation bi baaxul semence beeg intrant yi tardé na. te béykat yi liñ ciy jot néew na donte président yokku na gafaka gi mais répétition bi ni ñuy séddale alal ji ak ni ñu koy jëndee loolu jëluñ ci en compte béykat bi kan moo ciy gagné fournisseur bi ak intermédiaire yi mais béykat yi amuñu ci dara te waxoon naa ne président de la république na bàyyi xel document yi ñu indi conseil des ministres ak réalité terrain bi bokkuñ jàpp naa ne kon déglu nañu ci loolu parce que tey jii maay wax ak yow gerte gi. su fekkee Saloum sama commune bu fekkee bay nañ mille 1000 cinq 500 tonnes yëpp mbappata ko fa jëlee toog naa ba 11 ci guddi oto yi di sarse may ñëw foofu di wax ak baykat yi ñu ne ma ma ne leen su ma neexoon léegi ma jàpp waa ji ñu ne ma monsieur le maire jaru ko parce que amuñ fu ñu jaay suñ gerte gi naam am nañ benn opérateur boo xam ne ci Sénégal waxoon naa ko fi 2015 waxaat ko moo ci tane muy Modou kooku képp mooy ki nga xam ne dana jur angar di jënd. waaye it la muy def mënta matale parce que ñeneen ñi defuñu loolu du dëgg gerte gi lépp dañ koo mbappat dañ ko mbapat. waaw wax nga jafe-jafe yi nga xamante ni tey jànkonte ngeen ak moom ci àll bi. Hmm. tey président changé na ministre. Hmm. lan ngeen di xaar ci ministre bi. président changé na ministre balaa may wax ci changé ministre bi damay wax ministre agriculture bi fi bàyyeekoo li nga xam ne nii moom la moom moo amul moo am ci mbir mi kii mu moytu loolu. muy ne ci opérateur yi am nañ benn lobin boo xam ne ay mafia lañ am na sax ay député yoo xam ne ñëpp dañuy seeti ministre bi ñuy leen di jox ay quota ñoom ñu yore ko di ko feelu foo xamante nii baykat yi feelu ko fa di ko waxal loo xam ne baykat yi waxaluñ ko ko dox diggante mook ay baykat yi kii na moytu loolu dana am ay opérateur yoo xam ne ay mafia lañ dañ ñëw wër ko dalal ko suy dem en ci àll bi opérateur yaa koy jiite yóbbu ko ci zone yi nga xam ne xaw nay tane lañ leen wax ñu def ko fa mais benn ministre agriculture buy dem ci àll bi ay béykat ko war a teeru opérateur waruñ ci bokk d'accord naa mu may leen audience mais ay béykat ko war a teeru kii na bàyyi loolu li may njëkk remarque ci la bokk na bàyyi bu ñëwee zone Kaolack ay opérateur dalal la de cotiser di def ay affaire parce que loolu bu boobaa dugg na ci lobinu mafia Abdoulaye Seck génne li muy def mooy na seet baykat yi na wax ak baykat yi wala mu dem ci collectivité locale yi rencontrer maire yi maire yi xam nañ lan la opérateur yi def foofu ak lan la baykat yi jànkuwante waaye su fekkee sooy def tournée paysans yi duñ ko yëg groupe producteurs yi duñ ko yëg ay opérateur ñoo lay jiital di wax ak yow ñoo lay accueillir loolu mooy li fi newoon ñoom ñoo am accès dem ci télé yi ñoo am accès dem ci rajo yi di wax baykat yi waxuñ ngaanguñ amuñ ku leen waxal li ñuy war a njëkk a def mooy que ne nañ réforme système bii ñuy defee agriculture nañ fexe ku président fal fii li ñu xaar ci moom na créer ku déclare coopérative na fexe baykat yëpp am kuréel ci collectivité locale bu nekk kuréel boobu ñooy utal seen bopp soit am na commune yoo xam ne ñu ngi fay yóbbu ñebe bayuñu ñebe ñu ngi fay yóbbu dugub ji bayuñu ko zone bii bay ñebbi njàmbur ak kajoor nañ ko fa yóbbu saalum engrais gerte la ñuy béy nañ leen indi li ñu soxla loolu lépp nag su suy sotti day fekk ñu delluwaat baykat yi formé leen ñu am kuréel coopératif saalum kenn du fa demandé ñebbe kenn du fa demandé jiwu dugub kenn du fa demandé semence mil parce que loolu am neen ko te semence yi opérateur yi indi naan semence qualité la du qualité ci luuma yi lañ koy jëndee du certifié du dara tout venant la moom la ñuy jox jaaye ko état bi njëggu seer loolu ministre bi di ñëw na na na bàyyi xelam ci loolu li ko ci mën a dindi rek mooy que ne mu fexaat tout ñu nommé ñu defaat collectivité locale yëpp ñu taxaw nommé fa ay kuréelu coopérative béykat yi am kuréel muy wax ak ñoom directement ñu jox ko seen i bouchon li ñu soxla mu xool lam ca man mu def ko béykat yi sentir ko mais su su fekkee ni ni mu demee woon nii lay demee it fikki daanu lay daanu te su boobaa béykat yi duñ kontoon si président.